vous cherchez le bonheur. Aimez, car seul l'amour apporte le bonheur. Chers téléspectateurs sénégalais, qui à contentement je voulais me dire bonjour ou bonsoir ça dépend heure bi nga xam ne moom ngeen fas c'est l'émission du jour man tey Chifo ma ñëw fii nga xam c'est mooy Ouest gars très très reconnu ci milieu bu mu c'est seet si gars bi nga xam ne neex naa waxtaanal trop taalibe Touba de son prénom je ne sais pas si c'est Groupe ou pas mais on va on va partager avec euh, avec euh, avec lui c'est une nga xamante ne euh, débat d'aujourd'hui ñu bëgg xam kan mooy Griff Diouf di nga xam kuy Griff Diouf ñu bëgg xam Griff Diouf la lay def à part bi nga xamante ni moom lañ ko ràññee on va connaître mais damay bàyyi mu nuyoo téléspectateur di koy seetaan en travers Sénégal rek. asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku Sénégal rek asalaamaaleykum toi Sifo euh, comme on le Sénégal léegi am nañ habitude bi ginnaaw bi mu sunt sant yàlla julli ci yonante bi sant Serigne Touba Mbacke Khadimou Moustapha sant sama Serigne bu Baye Cheikh Awa maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu waa euh, Sénégal rek ak ñëpp ñu koy suivre di la wax ni dalal jàmm à Ouest Foire ba tax na gis ngeen nuyu nag ñi nga xamante ni mooy waa Sénégal ba pare dolli ci nuyuwaat ñi nga xam ne mooy waa Sénégal rek ñun waa Sénégal rek fay na la te yaakaar naan waa Sénégal tamit ñoom dinañ la fay Griff hmm. est-ce que le vrai nom c'est Griff waaw day mel ni ne soo waxee Griff Diouf sax di nga xam ne loolu siir noo la donc surnom la buñu ma ma il y a presque 9 ans. Mhm. waaw mën na ko sax ndax je me rappelle plus mais griffe bi foofu la jogging griffe bi nak liko indi tout le temps ni ma koy expliquer moy genre so euh, comme par exemple Adidas Nike Puma le Vuitton Gucci ñooñu ñëpp c'est des griffes. ok te mel point neuf griffe la six point neuf griffe la. Mhm. waaw man loolu la genre dama dama accro woon ci loolu. am damay rappelé may nekk xale sax y avait sama benn oncle bu nekk Milan. Mhm. su jóge woon vacances ñëw su jógee Italie ñëw vacances yére yi mu fi wàccoon nga xam ne daf ma ëpp dama doon dindi étiquette bi. Mhm. ma taf ko sama yére man ko mënuma jënd loolu. mais dama doon am loolu. shirt laay jënd bu simple mais jël étiquette bi ma taf ko ci. soo ñëwee ngeen am sa logo bi ne ma ne nii xamoon lii waaw maanaam noonu la commencé am nag benn waay bu doon romb tout le temps sama wetu école maanaam yow booy da bëgg sol ay griffe léegi looloo indi griffe bi. fa la tur bi jógee. fa la griffe bi. le vrai nom nag moom ñu ñu ñu bëri ñu koy lijjanti mais xamal ne daal ki gën ci ñun lañ ma tuddee. <laughs> loolu leer ki gën ci ñun yaakaar naa ni bu gaa yi si daal a comprendre ah. waaw mu ngi euh, kan mooy Griffe waaw. kan mooy Gris Diouf dina nekk benn question bu doy waar ndax nit ku ci nekk yaa ngi dund rek waaye xamoo sa bopp dëgg dëgg dëgg. kon mhm. nag yëpp peux dire benn jeune banlieusard la. Mhm. waaw jógee Kédiawaye ñëw Ouest Foire comme ni ma amee habitude di ko wax dama ñëw Ouest Foire immigré si waaw waaw. da nga ñëw Ouest Foire immigré si mhm. xam nga soo nekkee banlieusard da ngay nekk benn jeune boo xam ne. da ngay xam lu bari bari bari bari ci àddina bi mooy da ngay da ngay gis façon dundin bu nekk. Mhm. xam nga souvent sax soo dundee côté ñi nga xam ne sax ñoom lañ tuddee ay bourgeois. Mhm. après yàlla ñëw nga demaat dund ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee ay baadoolo wala yooyu nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Mhm. da ngay xam ñaari dundin yëpp. nekkoon nañu kéej waaye suñu jeunesse yëpp fa lañ ko defee dund nañu lu nekk. mais nag da ngay xam ne.

snap mhm. nit ñi nit ñi xam ñu ci mhm. waaw ñu commencé snap snap yoo xam ne c'est c'est des snap drôle mhm. nit ñi xam ñu ci commencé ñuy ajouter et tout noonu lañ demee daal ba ba ba ñëpp xam ñu ñu commencé aussi dugg Instagram nit ñi xam en tout cas suñu suñu suñu jëmm ji ñu ko xam ñëpp ci réseaux sociaux lañ ko xamee. donc à part ñi ñu xam à travers bi ñu nekk school et tout mais ñi ñu xam ñëpp ñëpp ci réseaux sociaux lañ ñu xamee quoi donc Griff Diouf jeune la boo xam ne nii moo ci réseaux sociaux yi. Mhm. di def ay live wala mu nekk snap di def des snap ou bien sur euh, Clubhouse bi ñëw récemment aussi. Mhm. am nañ amaat nañ fi beneen people bu fa nekk. Mhm. donc Griff Diouf daal c'est quelqu'un de connu via les réseaux sociaux. donc d'accord foofu ci kanam tur din fi ñëw mooy euh, Griff Diouf bu nekk ci euh, wàllum réseaux sociaux yi. Griff Diouf

wala ñuy wut ay euh, mango wala yooyu noonu damay raconter benn anecdote boo xam dund naa ko fa ma ànd ak samay xarit ñuy dem ramadan la woon sax nii. Mhm. ñu dem ñuy wut ay euh, gerte tubaab waaw bi ñuy wut gerte tubaab nag dem nañu mais comme séeréer yi dañuy cultiver. Mhm. ñun fa la ñu dem ñu dugg fa ndekete ñun tool bi ñu dugg am na lu fa sax mais ñun xamuñu ko ñu koy dëggate di romb et je me séeréer yi dàq ji ñu. <laughs> ñu dàq jee comme man moom maa ci nekkoon ki gënoon la cax man lañ ne kirtimtée ma xam nga séeréer na lañ ma def dañ ma tax ñu juutal ma <laughs> imaginez yow ñu takk la presque vingt minutes sang bi nekkoon suuf yëpp ñëw ci ko sa bopp bi nekk bopp bi nekk suuf may miir di damaa yuux ba mënatuma yuux xam benn àll bu ngande boo xam ne ay kilomètre kilomètre ngay yuux kenn déggu fa lañ ma bàyyi fa lañ ma bàyyi fa lañ ma bàyyi bu heure ndogu ñu ñëw ñu ñëw tekki ma wacc ma fa dem mais balaa ma génn

Ah, waaw tëj naa sama Facebook bu yàgg yàgg snap dafa ñëw rek ma nekk snap nekk snap même pas deux mois ma ne laa lii nag laa doon wër maanaam réseau social bii nag laa bëggoon ma tëj sama Facebook completement ñëw snap concentré wu snap mais snap li ci am solo mooy dama ci amoon benn vision man dama ne woon temps yooyu noonu y avait que RTS 1 s mhm. ñoo fi nekkoon et que dañu nekk télé yoo xam ne dañ ko doon seetaan tout le temps li nekk jeune yëpp moom lañ doon seetaan comme RTS nga xam ne Mickey rek mm. daa ngi nekk xale samedi sax samedi nga yakam ci Mickey bi jot deux ñëw ñu nekk fi snap bi ñew après ñun ñu concentré suñu temps ci snap mais gisoon nañu ben affaire snap moy nit ñi dañuy xol via snap lo duggal ñu xol ko deux lu mu duggal nit ñi xol ko mm-hmm. mais pourquoi pas xol bobu ñi nit ñi di xool deux mun nañ la ko xool yow exactement manam am ci vision ni la snap bi mën na ma fexé ba ku ma xamul woon xam ma. Mhm. mën na fexe tamit lu ma mënul woon am am ko ci. exactement deux la taxaw rek ne ñoom visibilité la nit ñi di soxla moo tax ñuy ñëw ci ñoom. Mhm. produit bi ñu am ñu ko fay indi ñu koy wane ñu leen di fay xaalis. snap bii ma yor tamit man mën na ma indi loolu te dafa nekk vision mu sa nekk ci man. Mhm. waaw sama benn xarit du il s'appelle Wose l'ambassadeur. man ak moom ñoo doon ànd tout le temps di snap et tout. donc nag bi ma demee ba gëm loolu noonu la ma yàlla dimbali. exactement pour rek indiwaat wax olof boobu noonu. nit lu mu gëm su ci farloo rek yàlla dimbali ko. Mhm. noonu laa commencé snap di snap nit ñi commencé ajouté griffe ajouté griffe waaye snap am dafa neex noonu yu ne nag ba nit ñu ñëw macha allah ci laa commencé nag business bu ma dugg dugal ko snap. ok nit tamit lu muy dugg ñëw woo ma ci ne ma griffe dugalal ma lii en tout cas snap bi nekk. benn ouverture pour ñi nga xam ne am nañu business nit ñi xamuñu leen nekk ouverture ci man tamit aussi samay business ma doxal ko ci sama snap quoi. Okay. donc snap lañ commencé d'un ba ci biir Instagram on voulait pas mais à la fin on a su que Instagram mooy réseau social bi ëpp doole. est-ce que nit ñi gën ñu la ràññee sax ci Instagram. donc snap. snap Ah snap lañ ma gën xamé xam nga juste que euh, griffe lañ xamone mais jëm ji lañ xamuloon. donc jëm ji ci Instagram la nga gën a Ah jëm waaw ndax snap j'avais l'habitude de damay snap mais duma snap sama image. ok j'avais l'habitude de snap mais du ma snap sama image. léegi nag nit ñi nag jëmm ji xamuñu ko woon ba souvent am ñoo xam ne ci milieu soo leen dajee sax soo nee griffe mhm. ñëppay tourné xool kan mooy griffe après ñu doog a xam ne kii mooy griffe jusque man dama doon sinap mais du ma sinap sama image mais mhm. Instagram nag live moom ok munoo live. nit ñi man donc man maa mun toog wane sama image nit ñi ñu ñu gis ma. Mhm. loolu tax Snap lañ ma gënoon a xamee mais tur bi lañ xamoon jëmm ji nag Instagram lañ ko xamee. ok ab ñu jógee Snap nag ñëw Instagram à ce moment je peux comme sama Snap ni ñu ko waxee griffe léegi da nga wàññi Snap ndax ndax Instagram. day mel ni club house bi ñëwee nii tamit dama wàññi Instagram ndax club house. exactement waaw loolu la genre da ngay jóge fii dem fii comme ñun tamit Sénégal dañoo mën a xewal. lu ñëw rek ñu xewal ko. Mhm. mais nag récemment on on a remarqué que ñibbisiwaat naa Instagram commencé waat live yi quoi. d' accord waaw euh, Griff euh, sa Instagram boo ñu fàttaloo année bi ñu ci dugg kañ nga ci dugg mu mel yàggul. waaw man je bien sama benn xarit bu tudd Assane Fall moom mooy njëkk a ubbil Instagram li na ma wax ni yàgg na nag mais musuma ko utiliser. maanaam mhm. dem naa sax ba mot de passe ba dama ko fàtte ubbiwaat beneen Instagram.

am ñu ko lu euh, woowee sax ñooñu mere naa leen trop waaw noonu daal lañ duggé mhm. avril jot couvre-feu bi ma ne attends comme couvre-feu bi ñëw na té surtout Snap la nekk est-ce que duma ñëw Instagram mu commencé ay live. ndax opportunité la té moment bi may wax lolu non Instagram j'avais presque ay 6000 followers. manam genre nit ñi samay xarit da nga fa nekkoon genre ñi ma xam Snap ñu ñëw agitoir bi suñu ma commencé nak après non la commencé mané il faut mu commencé ay live ils ont commencé live j'ai remarqué faux-faux people ngi tamit dama objet na ne live nit ñi dinañ ñew ndax man nan lay nit ñi ndax mm-hmm. Sénégal xam réew mi réew xam ñu fi dëkk non non au début non au début dama indi côté humour quoi de temps du si waaw ndax reetaan loolu nit moom yàlla da ko def ci man mais joxoo ma loolu yow miy toog nii tey te joxoo ma loolu waaw mais ramadan la ñu nekk dama xiif un deux àjjuma la ñu nekk trois mooy instant bii nii jumaa ji laa jóge man yàlla jaa ngi ci man mënul génn instant bii nii ah waaw waaw ah, kay da nga ah, jël jiw andi ah, ko waaw mais nag pas comme ça waaw du kii du man kii toog nii def nii sol sol yére olof toog kon kii toog hmm. nii du griffe non du griffe du griffe du kii rasul la joxuma tur bi ah la joxuma tur bi macha allah. waaw <laughs> ah, ah, mën nga ko tuddee nag nu la neex waaye daal kii toog moom la léegi nag noonu lañ commencé au bi mhm. <coughs> ñu commencé au bi ñuy def live nit ñi commencé suivre live mais leeroon nañu ne audience biñ ci bëggoon dinañ ko am. dëgg la waaw ndax euh, c' est pas logique aussi ci réseaux sociaux nga ñëw commencé def live tëj nga am benn audience bi. Mhm. yéemoon na nag nit ñi mais man xamoon naa ko ndax Snap ni ma débuté laa débuté Instagram. Mhm. Snap tamit noonu la ma gis ne vue yokk na mais dama xamoon li tax mu suivre la ci. donc euh, loolu nga jëloon comme arme ko day mel ni làmb ji. Mhm. ñi fi ñëwoon indi seen tëgg. dañoo ànd ak ñoom seen tëgg yi ba bëgg leen. am xam benn image la ñu indaale. waaw Siteu exemple. li mu fi indi. xam nga dafa ñëw fekk ñëpp indi li indi moom ñu indi lu spécial. indi touche personnelle. waaw boobu mu indi nag moo indi làmb ji am na mbër bu fi nekk xam indiwu fi dara moo tax kenn mënu ko supporter su amoon 100 victoire duñ ko supporter. Mhm. apporté wul dara nit dafay am leen loo xam ne soo kër gi nga nekk sax dafa am leen loo fay nekkee pour nit ñi remarqué ne yaa ngi fa souvent am na ñu nekk si kër gi xam suñu su mhm. nit mhm. la soo fa ñëwee bul fekk ñu doon def ñi di live mais ni ñuy defee live mënu moon def comme ñoom ni ñuy defee live mhm. man dama ñëw ma def sama live mais tout temps damay fexe ba lépp

ndax mosoo gis kenn ki Sénap ne wane seen kër am ay pocco pocco. waaw day xool seen kër fen wala sama dem kër xaritam ba dem na ba iPhone 12 sax soo ko yoree am na seen xarit yoo xam dañuy àbb ko ñu foto la ab jox la ko. maanaam am na ci Sénap sax dañuy dugg dañuy supprimer seen seen Sénap seen xarit mu dugg ci seen iPhone 12 Sénap fa joxaat leen ko maanaam day dem ku ci nekk image bu. positive wala image bu rafet ngay véhiculer mhm. man nag dama ñëw def laay mais je je naturellement donc tu la fait naturellement ci biir live ñuy dem di dem ba Griff Diouf commencé euh, di ci andi ay histoire personnes yi nga xamante ne ñoo la koy jooytu. Mhm. nga ciy partage ñoom lu waral loolu te yow nga débuté ci humour. waaw léegi xam nga Snap laa njëkk a débuté loolu uh, ay anno la woon chaque mercredi les di de Griff laa ko doon tuddee. dañ doon ñëw suñ ñëwee dama naan ku ci nekk na raconté histoire mu ñëw raconté ko Snap su ko defee nit ñi commentaire ci wax ci. Mhm. mais xam nga foofu ay anneau la souvent nag nga dégg ci histoire yu triste et tout léegi nak lolu ma don def snap dama ko arrêté après ba ñëw Instagram mais dama toog ci yàgg live ñëw nak mu indi wat ay anneau. Mhm. mais anneau yi je le faisais pas tout le temps mun na tok ci ben mois ben yon la fay def ñu waxtaanee ko ci live bi ma am ñen ñuma ma invité ñu ñu ñëw mais au début sumay def humour bi c'est pour xëc nit ñi. d'accord ci ñu ñëwé nak lima bëgg véhiculer ma véhiculer leen xam nga Sénégal dañu bëgg ambiance.

yow soo ñëwee nag incarné ko nit ñi dañuy ñëw mais nak suñu ñëwé nak yow fexel ba njëriñ nañ ko yobalé exactement man ce que je peux pas supporter mooy nga def live une heure de temps mille et quelques nek fa. Mhm. live bi jeex amul kenn ku yëg ne man fi ma nekkoon ni am na leen lu mu yokk ci sama vie. te xam-xam génn fa. man loolu musuma ko supporter je peux inviter quelqu'un boo xam ne humour lay def 100 pour cent. Mhm. mais dinaa fexe balaa moo génn ci live bi dinañ ci wax côté religieux. Mhm. côté.

Oustaz Alioune Sall def émission ma déglu ko ñëw ma def sama live ni Oustaz Alioune Sall waxoon bi muy def moment boobu noonu ñi ma am noonu ñu may flow duñ ko déglu waaw du dem YouTube di di tàpp Oustaz Alioune Sall lu mu waxoon jeudi bee mhm. léegi nag damay dem déglu Oustaz Alioune Sall mu def ko sama nopp ma ñëw toog sama live mhm. indi nit ñi ci li ñu bëgg ñu kaf waxtaanee àdduna ba doyal balaa ñoo dem ma ne leen eh, parce que Alioune Sall waxoon na lii guddi àjjuma bële def leen lii def leen lii def leen lii def leen lii def leen lii léegi kon man jël naa Oustaz Alioune Sall sol yérem wax ñi ñii ndax ñoom mënuñoo yegg ci moom mhm. donc mooy moo ma ne la Oustaz yi ñoo leen ëpp doole fukki junni yoon sax ñun mhm. ba man damay préféré sax même live yi may def sax da xam nga souvent da ngay dem bëgg benn oustaz Alioune Sall nga invité ko live. Mhm. mais mënoo ko invité ndax Instagram moom amu ko. du am sax temps boobu ndax xale yi muy jox xam-xam ak temps bi muy nekk ci rajo beeg yooyu. Mhm. donc yow da fexe ba ñun ñun ñooy dem déglu oustaz li mu wax ñu ñëw sol yére oustaz ñu waxtaanee ko ak suñuy flow. d'accord ba samay live sax dangay gis ne day am diine moom à cinquante pour cent ak. live bu nu mu mënti demee balaa maa génn dinaa ko wax yàlla par force donc yow sooy live sooy live thème la pour jox euh, message ñi nga xamante ni ñoo say follower nga xaman leen ah nga xamante ni dina mën a reetaan dina mën a kaf yow waaye tam bu ñuy génn dina mën a yóbbaale dara loo xam ni. Euh, ci Griff lañ ko tibbee mais Griff ñu waxtaan. est-ce que euh, ci métier bi nga nekk nii yaa ngi ciy tëdd. waaw day mel ni day àdduna li la may wax rek nit moom fu mu nekk un an yëgu ci dara. mën na reculer xool leneen lu mu romboon mu cofaat ko xool ndax wërsëgam fa wala mu tëb dem ci leneen. ngir am nga oto. non amaguma oto. amaguma oto <laughs> am nga kër. non amaguma kër yëpp amaguma ko yére doog laa amaguma instant bi ah. waaw yére doog laa amaguma ban ban façon téléphone nga yor. Euh, iPhone 6s. iPhone 6S mais bon iPhone 11 laa gis comme ma 11 11 plus je sais pas. non iPhone 12 bi sànq dama bi may def émission. en ah, iPhone 12 voilà. non non bi bi may ñëw non bi ngay ñëw. nga am ben waaye bu mako abal néma comme na ngay dem mun nga ko yób mun nga ko yóbbaale quoi. waaw d'accord légui léegi waa la Griff yow mm. est ce que tay yaakaar nga ni di nga am xaalis ci walum euh, li ngay def ni ba jënd sa iPhone 12. waaw je crois bien que ne nag euh, sant yàlla bari ci ramadan lañ nekk du ma mën a sax wax lu dul dëgg. doy na waar en tout cas ñun yëg nañ ne ginnaaw yàlla réseaux sociaux may nañu lépp. réseaux may na leen lépp. waaw may nañu lépp ndax bañ ci nekk amoon nañ ci objectif mooy dinañ ci jaamu yàlla gëm naa ni su ma yàlla di fay fay bi may fay lu ci gën a bëri ci réseaux sociaux lay jóge lu tax. primo man ñu may suivre damay wax alhamdulilah du lu bari la yaayu diw wooma ne ma sama ça va xamuma sama doom moo ma jox sa numéro tey damaa yeewu fekk muy julli. mu hmm. julli ba pare génn mu ne ko ah tey xamul xew mu ne yaay démb dama doon seetaan guddi àjjuma Grif Diouf mu rek ma tiit wala yaay Grif Diouf nee na ci julli lii ci julli laa. mais da ngaa jékki waaw waaw tey sax gis nga moom laa incarné nii hmm. mais nag du ma ko de <laughs> ami <laughs> gone waal yi la xaw ma paaw waal yi la. waaw juste waaw juste que euh, entre parenthèse la di la wax ne que ne. dañuy jéem a nekk nit ku gën même bu dee gën sax yombul comme la ma la wax sànq nee naa ay murid lañ te saadix lañ bëgg a nekk. Mhm, ça se montre. waaw maanaam dañuy góorgóorlu ci li ñu nekk ndax. Mhm. sama maam dafa ma waxoon lu am solo nee na ma fexeel ba yombal xiyam na nga dugg àjjana Sëñ Tuubaa ñëw di la wër. sama am lan la fexeel ba dugg àjjana suñ ci ñëw di la wër. maanaam man naa lijjanti man lu may dugal àjjana ka may lijjanti sëriñ tubaa ramb ma. dëggantaan dëgg naa liggéey fii ba Serigne Touba su wàccoon ci kaw suuf sax dina leer na ne man dina ma woo. dëgg naa eh, waaw man Grip soxla naa ko ma ñëw ma dem fa. Hmm. naa xam ne nangul na ma murit bi ma doon. Hmm. mais je peux pas incarner être ku ma gis di xeeb murit. d'accord. ñëpp nangu nañ ne man murid laa bëgg a doon mm-hmm. ñëpp nangu nañ ko nekk gu ko nag leer na ma ndax jëmmi murid dëgg dëgg dëgg ma nekk gu ko ndax bis bu ma ko nekkee ñëpp dinañ yëg ne nekk naa ko du nekk ci lu dul sëñ bi rek laay nekk mm-hmm. ci laay ndekk di añ di reer di nelaw di yeewu sëriñ bi rek waaye nag moment bi ñu toll dama leer na ne damaa war a liggéeyal sëriñ bi ci sama jëmm ji mooy kenn du xeeb euh, fépp fu ma dugg di wax mënuma fa toog wax fa ba jóge fa ndax gëm naa ne yàlla mi ñu sàkk moo ne fépp fu nit toog ba jóg te tuddoo fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoo fa dara donc man loolu dama koy doxee di ko waxee mhm. maanaam ku bëgg Serigne Touba da ngay bëgg yonent bi ndax ñoom ñaar benn lañu jàng ma dara nag jusque nit hmm, soo amee xel après da ngay mën a am xam-xam ndax da ngay dem ci ñu am xel ñu lay ñuy gën di sottalante nag

mu ne carrément kat yéen ñëpp bëgg ma sa jaar ci ci ci ci bi mu ne yéen ñëpp moo leen yilif ci wàllum li nga xamante ni mooy ci ci ci ngeen nekk. Hmm. sa xalaat ci loolu lan la. Ah, <laughs> waaw xam nga en ce moment nii may wax yow hmm, li li naan audience su live moom il le plus suivi audience. maanaam su defee live. Mhm. ñi koy xool ëpp nii day dem day yéeg ci yenn visibilité yoo xam ne nit live na. naa an sax amu ko. exactement waaw bare yéeg na foo xam ne nit live na ba live jeex te mosuñu gis ku nekk foofu ci live dafa teel a xam lu nit ñi bëgg. Mhm. waaw dafa teel a xam li nit ñi bëgg ndax gis nga Sénégal leen naa la wax sooy def live quand tu fais sérieux kenn du la xool. ok man loolu dama ko teel a xam ci samay live yi may def tout le temps guddi aajuma bi su ñëwee da gis audience day wàcc man mënuma comprendre loolu. def loolu moom laa fekkoon ci Instagram mhm. ay ay vidéo muy tagg yonant bi sallallahu alayhi wa ab ma dem gis ko nag saa ab ci la ñuy dugg sama live nekk nag ku ku saf xorom noonu lañu xamante te man nit ku ci nekk ak loo mënti def ci àddina il suffit que ma gis ci yow bëgg yonent bi rek dama lay bëgg sallallahu alayhi wa te moom laa njëkk a gis ci moom muy tàgg yonent ci benn stadium nii affaire bi neex ndeysaan maanaam taalibe seex nii lay mel mel maanaam foo ko fekk da nga war a gis ci moom bëgg yonent bi. ma ki ki ki ki ki tagg yonent bi ba pare ëlbatiku. waaw lu bi nag ma ci di saaga ay nit. man xaw ma daa am tubaab bu mu mbéj xaw ma daam wàlliwu tubaab bu mu mbéj foofu mu nekk ci dëkk boobu mu nekk. man mënu ma comprendre bi ma xëyee nag gis ko mu commencé di xotti. di dagg di sànni. laa ne <laughs> laa man nag su ma ko fee man xàmmeetuma ko. waaw noonu daal la commencé mais xam nga tamit magum jëmm la tamit xam nga. te jox na la cër ah, parce que am na vidéo yu bëri lu tax wasaareew ko loolu laa ko mën a waxee en grosso modo yow yaa tax. waaw xam nga tamit loolu début la rek maanaam bi ñuy doog a xamante ni mu xamee ne noonu laa xamee ndax fa ma ko fekkoon la ca tagg yonenti ba. Mhm. ñëw ne ko ba ba léegi nii sax tout naa temps dañuy di ne ko dañuy def benn guddi àjjuma live man moom. Ah. ndax macha allah voix bi neex na mun na mun na li muy def loolu. Ah. waaye su ma xalaatee ne mun naa am sax ma invité ko ci guddi àjjuma bi am ku commentaire daggal ko. Eh, eh, day <laughs> fayu da nga ma dagg guddi ah, day fayu day <laughs> fayu. loolu laa ci gën a xalaat. Mhm. mais nag li tax mu jóge fee après ñëw fii moom moo ko xam xam magum jëmm la. Ah, mais jusque man je sais bien que ne am na fu ma teg. ndax dama naa nit ku ci nekk li nga incarné nit su gisee ci yow loolu lay gis ci yow. Mhm. ndax su nekkee da nga ñàkk fulla. Mhm. ku la gis ñàkk fulla lay gis ci yow ndax moom ngay doxee waxee. mais bu dee da nga nit ki ñëw. ngeen di dundee fulla ak fulla mhm. loolu rek lay gis ci yow te loolu lay jëflante ak yow mhm. il ma respecte li tax mu respecté nag man maa ko respecté mhm. ndaxte nit soo doon soo rombee sax kuy tux nga topp ko di ko xas ci kanamu nit ñi su yàggee rek mu fipp waaw mais man lépp lu ma koy wax damay ñëw ne ko ah lii de soo ko defee woon nii ak ñi ak ne wala muy waaye def benn affaire ma ne ko non bu ko bul

au Sénégal seulement parfum moom macha allah. li ma képp ku xeeñ parfum bu neex man maa ko jox ñëpp nangu nañ ne parfum moom fii ba Arabie Saoudite daal laa yóbbagul te sama yaay su suy dem maa ko incha allah rek ma jox ko mais képp ku xeeñ xet bu neex man maa la ko jox moom. parfum daal moo tax daal lépp lu ma am ci àdduna comme li naan xaalisu xaalisu kii xaalisu. lamb lañ ko génte man sama doom xaalisu. parfum ak tuuti xaalisu réseaux sociaux lañ koy génte kookoy grif djouf je peux même dire de son vrai nom Rasoul je peux même dire de son vrai nom Mohammed mm. loolu lañ ko woy voilà parce que nee carrément ka ki gën kooku lañ ko tuddé donc tay mom la invité won ci sama euh, émission muy relax time donc dama koy bàyyi mu tàggatoog ñi nga xamante moy téléspectateur du Sénégal rek yi Griff waaw man limay may rek moy nañuy fexé ba lépp ci lu ñu mën a nekk ci àddina muy sax nañ ci fexe dund yàlla waaw te aussi secret bi may dundee di ko doxee di ko waxee dama ko inclure ci samay flow ni leen fu ñu mënti nekk ci àdduna nañuy mhm. safal ci seen gémmiñ sallallahu ala muhammadin mhm. ndax am na fu mu ma fekk am na fu mu ma yóbbu mhm. yëg naa ko ndax dund naa ko peace love Sénégal rek fooy